ku ci naan lëxwu ak laxwu foog caaxaan yaa koy dàq ci àdduna wazinatun yaay gën a bëgg sañse ci àdduna wa tafaaqurum baynakum xëccoo puukëri bu ñetteel bi ku ci naan ci lool rek ngay dëkk wa takaasuru fil amwaal ci ngay dëkk maa la ëpp tool maa la ëpp gittu nag maa la ëpp gittu buy nee na ci ngay dëkk ba fawu iblis moom it ñeenti robinet jox ko xaritam moo tax ni ko ñetti sang yi waxe ci njëlbéen bi lu mat xel la ndax mantiq bokkul mantiq bokkul logique tubaab ak logique bu ku ñuul bokkul wante bu tubaab bi jàngee logique bu nit ku ñuul man ko daf koy man wante gu nit ku ñuul ki jàngee logique bu tubaab daf koy man man ko léegi soo dee atte nag nga def très attention parce que bu fekkee doomu lislaam la li lay jëkk jàngal soo demee moo di xam-xamu tawhid naka ngay wéetale sa borom تتوحد تأنيار لن يتيجك الجنجل العرض والجوار شيم تحقق الجوهر الإنسان واو يو يوثق النت boo bëggee fragiliser nit maanaam boo bëggee damm dara ci nit jaar ko ci mbiskit wante bu ko jaar ci jikko yonent bi bu fekkee min ci moom ndax doo am boo bëggee fragiliser nit danga koy jaar ci miskit bu fekkee jikko yonent bi nekkul ci moom daf lay yomb pour nga daanal daraja wante bu fekkee ni jikko yonent baa ci moom doo ko mën ndax jikko yonent bi kenn mënu ko daan كل منكم شيخ سيد عبد القادر الجيلاني تفخم بالمنيت ويا المريدين مايكو على may ko kàttanu war fas may ko kàttanu rëbb bu ma san fabu bay rëbbi da defe ni Louis quatorze moo jóg wala Napoléon premier moo jóg te mooy imam Badawi comme ñépp nag moom lañ daan tegi soxla te su jógee di rëbbi àdduna yëpp jóg ànd ak moom xeetu fas bu nekk daa ko gis daf ko itam cheikh abdul qadir jilani dafa am lu ñu koy jëwe mooy soxlaalul kenn dara amul xemmemte ci kenn keroog bi amirul muminina waxee ni danaa ko ci génne mag ña ko jege ñépp ko ni danga yàq sa temps mu ne xam naa naka laa ko génne ndax ku ne am nga xel waaye ba mu toogee ba ñu julligee ba noppi mu jël waxande def ci ay diinaar yu dul jeex ñu wax xalem bi ni ko waxal góor gi ni ko amirul muminin moo taxaw ci sa buntu kër te mi ngi amee ay waxande xale bi dem wax ko ko ni ko hada waxtullah ah mu ni ko hada waxtullah laysa bi waqti xad wala bi waqti amiri lmuminin dal di dëdd dem fa muy naafila ba ba ko fa fajal mu ne xale bi waxal amirul muminin ni ko waxtu bi du waxto waxtu sunu borom la moom nag bi mu dajee ak badawi di ko déey ñépp ni ah, lu góor gi def ni man soxlawul dara ba mu déeyee ba dawi ba bàyyi ba dellu këram ba ñu ñibbee ñépp a jaax parce que badaw yi dafa mel ni dañu usidditam yi ba mënatul yëpp ndeke góor gi def ko déeni ni ko am nga cër bu rëy ci yàlla ma nga la ko dencal nag bala nga cee jot rek bàyyi ñi lay def te mu ni ko kat xam nga lu buur yépp di wut ci kaw suuf wóolu wóolu buur bu wóoluwul rek matatul buur mu ni ko te cër biñ ñu la dencal nag ci nga wóolu nekk ndax bu boobaa yàlla moo lay sax mu dem waaye lu mu toog wëlbati wëlbati rek baatu góor gi di wëndeelu ci biir nopp yi ba mu dellu si seet ko ni ko naka lay mbooloo mu toll bi mu di leen entretenir mii na leen doxantu mii na leen rëbb mii na leen réception naka lay nekkee ci seen biir naan leen kaay leen ñu dem ci yàlla mu ni kon nga daw mu ni kon nga daw fu ma jëm mu ni ko nga dem misal ba gis nga fi badaw yi mujj bu ñu tuddee Cheikh Abdul Qadir Jilani ci fukki ngand yeeg juróom-ñett moom lay tey tey fukki ngand ak juróom-ñett ñu yàlla dénk ak daawatu la ba ba addunay tukki fu nit mën a ne ak siècle bu mu doon ak ruq bu mu doon bu ne ma ngaa wooteel yàlla fukk ñooñu ak juróom ñett ñooy wax ni ci dëgg la ne wala ñooy wax ñooy càmbar dossier yi ndax ñoom rekk lañu ñu dugal seen ruux ci seen biir yaram te ëmbuñu ko doomu aadama bu nekk sa ruux mi ngi ci sa biir yaram wante dañ ko ëmb bu ko ëmbul woon doo def erreur mukk waaye dañu ko ëmb waaw moo ngay gis nit di ko yërëm te doo xam loo ko yërëme moom itam muy yërëm boppam te xamul lu muy yërëme boppam fekk na dafa am lu mu bëgg a fàttaliku loo xam ni jëkk na juddoo ndax ca loola la nekkoon waaye comme dañu ko ëmb du mën a mbëtt ëmb bi pour xam loola am conscience ba ca wante bu dee fukk ñeeg juróom-ñett ñoom comme kenn ëmbul seen roof kenn mënul dëkk ñoom man nga ci dem ba ni dañuy xar fekk xaruñu xaruwuñu duñu yëgul ni barewuñu waaye seen objectif lu noble la te mooy lu ñu mën a sowe ci nit yu mooy yàlla yóbbu leen aljanna daañu ko def wala ñu wuy seen ñoom loolu rek seen liggéey dañuy ci des soxla wuñu ko waaw Umar ibnul Farid dafa am ku ñëw fekk ko mu toog mu ne ko ñaanal ma ma dem aljanna ونكون لو فيغوتي ونكون الجنة لما فيغوتي ونكون جاردين دانفون ولا ما خلي يتوتي لك نفعك seetal ku réyloo wut arjan koo xam ni réylu nga wut arjan ndax sa daraja àgg rek ndax ñoom fukk la ñoom juróom ñett ñoo nekkoon ca adur na tul bay xamu loolu lu weex du couleur lu ñuul du couleur bi ñuy am jant amagul ca jant moo sàkk couleur moo tax lu weex ramz la lu ñuul ramz la bu ci nekk symbole la waaw loola tax fa ñu daan defe seen réunion ca bët ba ñu ñëwagul ci mu doomu aadama ñu tudde ko addurratul bayda benn rocher bu ñu daan dagee seen club la الشيخ عبد القادر الجيلاني غاني ادنا دي لير ويرو كور نيو تبوكا يايام بخي ويرانام تي بچك بي مو باج دو نام مو باج نخ بوغول خوتي اورما ويرو tax njabootam yëpp ni karama la mu ni du karama ndax ci conscience laa ko def te karama borom du ko def ci conscience mukk waaw bi ñu ñëwee nag ci àdduna ñoom ñooñu te bëgg wut formule bu ñu wonee nañu fa nekke woon bëgg wone ni itam biñ leen di dugal ci seen yaram ëmb ñu leen dafa nekk seen fitna ndax ñoom loolu rek mooy nekk seen fitna ku ko ci jëkk trouvé ñoom ñépp ñu dal sa kaw di la fóon di la ndokkeel formule ba ku wax rek ci ñoom si moo tax seen réunion boobu ak seen club ba ca roche ba ñu daan daje te tudde ko durratul bayda ba imam Dasuuqi trouvé formule ba gis nga ko ñoom ñépp mooy seen soxla wax ne ala durratul bayda i kaana ijtimaau ومن قبل خلق الخلق والعرش قد كنا وانا دم انا بيا اللي في العرش من كويس هذا يمي يعني تيترو عرش الكرسي بيا اللي دفر عرش من كويس هذا تبوا بنيوك تدولة البيضة nit ñooñu ni ñu néewee noonu la ñuy yonent bi ndax kenn ku ci nekk li nga seetaan nit di ko def ci musiba ci xeetu yonent bi te nanguwuloo ñu yóbbu ko safara nanguwuloo ñu yóbbu ko safara mukk xam nga ñoo ñoo jëriñ yonent bi ndax yonent bi itam fierté mooy kii ni ko yaakaar naa la waaye damay def bàkkaar bu demee aljanna fekk la loolu mooy fierté الذرة البيضاء كان اجتماعنا ومن قبل خلق الخلق والعرش قد كنا تركنا البحر الداخلة وراءنا أه؟ برم كالي جديد أكبرم مانتو يدي تيترو وخلين لي تركنا البحر الداخل وراءنا ci suñu réunion yi gisuma leen fa moo tax ñu jël ci ñoom ñeent ndax booba cumul dagan na ndax booba cumul dagan na ñu jël ci ñoom ñeent il est un comité pour restreindre pour nous surveiller ni ou à tenir ou à l'élu. Vous faites que vous êtes un mandat nous. te seen dossier ngi ci sa dossier ngi ci seen loxo raw nga ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون waaw waaye bu fekkee ni nag dangaa woote ni waliyu nga te mel na mbokk ma ma xamoon ca Tiwaawan xëy rek ñëw ni ma rek sotti na ma ne ko ah, mu ni ma yàlla jox na ma bi ma ne ko won ma karama fekk mi ngi amee benn orange ci loxoom mu tël orange bi ni ko demal orange bi dellu si mu ni ko dikk moo tax yëf yi dara rëccu ci ku defe ni rekk mën nga ci topp sa bakkan loolu xaru la loolu xaru loolu xaru la moo tax cheikh abdul qadir el jilani ndimbal bi mu dimbal maamam yonent bi ci wàll boobu kenn mënu la ko wax xam nga bi bagdad bewee ba bew mais yàlla li sama turandoo di wax ñu ni ko xéwal yu bari yi ci loxo mu ni dafa jëkkanteeg jamono ndax xéwal yi bare na bare bu nga xam ni fasul yéene àdduna tukki di ko fi bàyyi moo tax nga gis nit ku jàngul dara xëy rekk ni maan ci diine ji ñu protéger ko fu mu yëgul da xéwal yi dafa bare moom nag dafa wax ni ñu protéger la li muy baax baax am na lu ko gën mooy nga fexe ba xéewal bi ñu la may nga xam noo ko sante ndax bëggi li ñu la may xereñe noo ko sante moo ko ëpp doole loolu tax mu tànn ñeen fukki waxambaane tëju ak ñoom waxleen ni dama leen di jàngal ñeenti baat bëgg ngeen bouleversé ci situation bi Bagdad nekkee ñu ni ko yan baat la mu ni alkamal fi talabi alkamal والكمال الأعلى هو الله عز وجل ñu jàng ko mokkal ko mu jox leen sirru ba mooy fierté bi nga gis koo ci gis te seetlu ko boo amee psychologie am dëgg-dëgg dañuy gis fierté bi ci moom waaw seen façon gu kaala bokkul ak bu nit ñi seen façon gu doxin bokkul ak bu nit ñi foofu lañ ko jëlee seetlu ko ndax ñun Tiwaawan dañu daan def bu ñu yóbboo góor gi bésu gàmm ba mu àgg ci juma Maodo dañ koy tàgg parce que gàmm moom neexul woon ci ñun gam moom ci ñoom sëriñ Alioune Gueye la neexoon waaye ñun ñu nga daan dem kër El Hadji Cheikh Yérim Ndoumban Seck lan daan gam ndax fierté baag yi ñoo tëgg jànq yee way way neex yee foofa laa da ngay yëg ni yonent bi rek mooy seen dal ñoom falan daan toog ba fajar waaw soog a dem bu ñu fekkee góor gi demul ñu ànd ak moom ñibbi bu ñu fekkee mu dem baax waaw booba gàmmu gàmmu ndax itam boo ñëwee danga danga duy duy mbégte at ba at dem xaj na ci yonent bi waaw xaj na ci duy mbégte at ba at dellu xaj na ci yonent bi waaw ko ñetti kuréel di wujji ku ci gën a baax ci yonent kuréel bu jëkk bi mooy fukk yeeg juróom-ñett yi ma wax kuréel bu ñaareel bi mooy fuqahaa yi Pour courir bougnettel bi moi les hommes les plus dangereux du monde. C'est Témoin intellectuel. Parce que nous avons quand même le Si vous voulez, rien dire, c'est un ennemi de sa famille, mais nous avons le lendemain. te koy wax duñ ko nëbb mel ni yonent bi nag dafa baawaan ci seen kaw xam loo leen ci xeetu xam-xam loo ni nitu yàlla bu fa jaarul boo bëggee taxaw ci seen kanam mara day tali daañu la fitnaal ba dootoo bëgg a dund mujj na seen xam-xam amatul limite xam-xam bu amatul limite ci laa gis silmaxa buy jàngale dicte ñi muy jàngal trente mille pages te silmaxa la gisul wante li mu xam kenn xamul fu mu ko ci troisième siècle jàpp quatrième gannaaw Égypte li fi yàlla wane ci doomu jàng doom yu jàng ba kenn xamatul li ñu jàng na mu toll ñun daaw bare ñu ngi leen di bind di leen def ay ñi ci ëpp doole te ëpp ci xam-xam rek nag la ñuy jël man jëlagum naa ci junni intellectuel ak ñaari télé te seen yoon boo taree alxuraan ñu dàq la nga taree xadis ñu dàq la lool làkk ñu dàq la ko recherche boo def fekk na xam nañu natiija bi ba noppi nga indi alcool jox leen ñu naan ci sa kanam ba man loo ci mën te kenn du leen tudd kenn du leen tudd euh, xam nga xulafaawu yi ak umara ul te ñu rawante bokk na ci ñi ci siiw te am njàng harun rashid mais harun rashid ñaari doom la amoon ñooy bakkanam muy amin ak ma mu ni nag dañ koy rey mais pour mu jox leen ku leen former dafay set ko raw ci àdduna ba ñu wax ko turu ali ibn hamza mu wolu ko mu ñëw mënu ko dama la bëgg jox amin ak ma amoon nga formé leen naa ñu ngi jëm ci àdduna bu nga xam ne rek moitié amin ñeri xam nga ali ibn al xam nga ko bu baax ah mooy kisaa yi ah waa Sénégal xamuñu ko kisaa yi lañ ci xam yàlla dogal doo jàng ci sëriñ Babacar te sitewula kisaa yi doo jàng ci sëriñ Cheybatu te sitewula kisaa yi doo jàng ci sëriñ Alioune Gueye te sitewula kisaa yi doo ñëw tàkkusaan fekk kisaa yi toog te fekku la ko mu màndi seetal loolu fekk loo ko mu man bi mënuloo ko am doo jàng ci Serigne Babacar te cité wu la Abu Bakr ibn Durayd doo jàng ci Serigne Cheybatu te cité wu la Abu Bakr ibn Durayd doo jàng ci Serigne Aliou te cité wu la Abu Bakr ibn Durayd dañoo tak seet si ko te fekkul bermati. Lalu naan ba gemetar. pour moom ndox la comme ndox yëpp du ko defe illa sabar. du ko defe illa safara du ko def ille ci ni daganal nañ ko du ko def ille ci ni aramal nañu ko yoona ko xam nga lu ma ciy def ille mooy bala maa dee danaa fexe ba téeméeri junni ci xeetu muhammad am njàng loolu rek la la ca des nag du sa affaire xamuloo la est ce que yow yaa woo ci sa yële ak sa njaaxle naan ko kay maa moom yoonam nekku ci xam na ni buy taxawit ci kanamu yàlla lay taxaw te yàlla it paasewul li mu buuru na waaw buuru yi jeex na waaye du yow yaay ñëw yow miy révolté fii di condamné ci saa yi du yaa koy àtte ëllëg xamuloo est-ce que di ko tal sax loolu moo tax am na jabar ba noppi am coro bu góor loo ci mën parce que nee na ñeenti bàkkaar il faut que ñu intellectualiser leen buñ leen intellectualiser ci loxo barbare yi lay mucc te kon àdduna tukki bu jëkk bi mooy li ñuy tuddee alcool nee na rekk ko war bi wante baadoolo la waru ko du ñaareel bi mooy prostitution métier la boo xam ni ku noble rekk ci war a dugg waaye ku noblul waru ci dugg c'est tellement grave mais c'est tellement vrai lu ci nit mën alcool prostitution drogue daf daan jël drogue dorogu pikiir yi ci ñu ko jëkke la bokk doom yi ma ngi ko daan wutloo ji en bu ko amul remplacé ko ak doomu poivre gis nga mu daje ak imam Shafii imam Shafii kenn mësul gis nit bu mel parce que du wet bi kenn ca la itam du digle du tere parce que ñi muy wax a faraw mu ñëw ci kuréel bi ci digg bi nag te mooy kuréelu fuqahaaw yi mu samp lekkoolam bii loxo mu jox ko intellectuel yi bii loxo mu jox ko borom fukk ak juróom ñett yi amee commission looloo taxoon kenn ummatam mel ni moom ca adduna doo ko gis imam shafii am na benn xale bu nga xam ni di ngeen dégg mag ñi di ko cité mu di al asmaa yi jóge na Bagdad ba makkatal mukarrama pour jàng benn téere ci imam Shafii te téere ba ñun ca dañu daan jël café ba noppi sol sa cara dox ñetti tànk àgg keur sëriñ shaybatu mu jàngal lako niki ko imam Shafii don jangale asbahi asmaa yi loolu moo tax sëriñ Babacar daan ma wax ni sa maam ku sa turandoo am sa maam am na ni ma dëkk yi bokul ak jamono yi waaye ku sa turandoo am rek sa am nako mag ñii ak seen xaftaan yu gàtt yi kenn ku ci ne kenn ku ci ne ku la ëpp cër ci yàlla nekku ci gis nga ñi ci gënoon dangereux mooy kisa yi boobu mi ngi tuddaani ibnu Hamza ولا علي بن الحسين كوكو موم واخوما صاح نمو نيكو دانجير مي بروفوكاتور لا بوغا خامني عمراء ييب اك خلفاء يي دنجكو مجي دي داو باسكو يغول كين gis nga xam nga tudd naa ku ñoo wax andré balou sànq dafa am benn wax bu mu waxoon defe naa moom la de ni lu ma gën a seetlu doomu aadama yi di gën a sopp sama xaj seetal boobu waxin xam nga moom waxu ko xam nga ku ko wax abul faraj al asbah boobaag léegi mat na junni at waaw waxu ko woon it ci xaj ci wundu la ko wundam bi mu rafet mu takkal ko kulyee jamono di ko dendaleeg jabaru amirul muminin Nak provokasi orang. moo defar kitabul aghani abul faraj moo defar kitabul aghani kitabul aghani kan mau koy jàngale ci sénégal gis nga am na tubaab bu ñoo wax Jeanne d'Arc dindi na ci dara traduire ko bi moo laata dee bi ngi am solo man am na ko waaw wallaay moom ci ñi gën a la bokkoon te itam provocateur la woon Dan na toog ñu ñëw ne ka amirul muminina nee na nga ñëw ca añ ba mu ne wax leen que ni ko sama wund dafa constipé luñ ci te jàng lu ne benn fànn rek la jàngul woon mooy firi gént te daf ko fàtte foogul woon ni dana taxaw bëccëg ngir firi loo ko gént parce que dafa jàpp ni firi gént caaxaan mu jàng lépp fàtte jàng firi gént ba benn jigéen ànd ak doomam bu góor dab ko ni ko dafa am gént bu ma gént bëgg nga firil ma ko mu ni ko dama njambale mu ni ko dama njambale ba maa ngi ko bëgg def ci sama tubay sax ndaw sa ko ci desitu timis yi ku mu xam touché na la ba am téere buy firi gént ñu julli gee ba noppi mu di ko jàng bi fajar di laata jot page boo ko ci laaj wax loolu jële seetal bi yitte du ñu woon nit yéen nag sa ca yor yor ndaw si ñëw ànd ak doom bu góor bi ñu ko dama gént sama jëkkër ñu ko ci jaat di ko yóbbu pour suuli ko benn baaxoon jóge ci kaw jëm si ci moom ba agsi am ko damm tànku baaxoñ ba mu ni ko kan nag booy boo nga mu ne ko lu tax mu ne ko sa jëkkër dana changer de situation mu ne ko dina dem ba dootul def dara lépp nit ñi ko koy defal ni ko nga xamee ni néew lépp mu ni ko dana amit xel mu ko yàllay sol moo tax baaxoon ba jóge ca kaw fa baasa allahu guraban waaw mu ni ko tànkam bu damm boobu mooy wone ni nguur gi ñu koy dénki dana ci am conseiller bu bon boo xam ne du ko digal lu baax mooy tànk baaxul boobu nga gis ñu damm ko mais la mu ko wax yépp dara tardé wu pour wax ni ñoom seen yitte seen yitte kenn xamul lan la euh, ki ko gënoon niru esprit ci sunu jamono ma daan ko ko xoole daan ka fekk fu ñoo wax boulevard Saint-Germain benn tubaab la bu daan defar journalu boppam di ko jaay naka la tuddati te taalifkat la yéen ñëpp xam ngeen ko da daan jaayal boppam te ku ne xam lu mu ca jublu Jean Paul Sartre barkallahu fik ah daf ko jël ba da nga jaaxle sax ki ci des mooy abul fadl badiu zaman alhamadani da nga jaaxle ni ko benn philosophe allemand jële bu ñu wax nit bokk nañu ba bokk بدیع الزمان چی عزیل پسیکیاتریک لده تا باق لیگی متن جنی ات پروان لنی خم خمی وخما خم خم جنگی دفع دوگن jàng yi dafa duggante xam nga nit ci jooyo bu mujj est-ce gis nga est-ce que gis nga euh, euh, euh, jote bi Mouhamad Iqbal jote ak Einstein du jot ci dëgg-dëgg jot ci mbind la xam nga Einstein nee na bu teeloon xam ni physiologie moo nàmpal biologie nee na kon li ma wut doon na gën a gaaw a sotti mais daf ko xaw yéex xam xam nga Mouhamad Iqbal wax ni parce que dafa demul ci إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة dafa am benn plateforme bu yàlla defar ba noppi yàgg na inaugurer ko boppam def fa benn plaque tudde ko Sahir foofu la ñëpp di daje ëllëg nit ak jinneeg ñëpp as ci arab mooy foo xam ne boo fa nekkee doo gëmmee fa nekkee nga gëmmentu zajaratun waaxida bi nag mooy li Einstein nanguwul woon nit ku dee